asalaamaaleykum lay tàmbalee tey li ko waral dañu ñëw ci daara seet si boroom xam-xam seet si borom daara muy sëriñ Modou Diaka Ndiaye réew mi xam nañ ko ci xam-xam waaye xam-xam bu wér bu sell waaye tamit faj aajo jamono ji toog na ci lool. loolooy waral nag tey moom yar ak teggin rek la ñuy mën a amee ndax ki ñu ko séqal daf di kàngam nekk kàng ci réew mi Serigne Modou Diaka Ndiaye daan na génn di def ay révélation waaye li ko waral rek li waral ñàkk génn bi fan yi dinañ ci dikk li waral tëju bi dinañ ci dikk waaye tamit li waral sénégalais yi namm ko te mu mu toog fi mu toog di faj aajoy jaamu yàlla yeneen gis yóbbante yi yëpp war a dem ñu fekk muy doog a yees sëriñ bi dinañ waxtaan ak moom ci actualité ndax daan na génn di àddu sénégalais bu mbir naree xew mbir nag ndar naa xew ci la 16 diggante Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang sëriñ bi tey na leen wax lu ngeen ci mësta dégg wala sax lu ngeen ci umpule sëriñ bi dinañ waxtaan ak moom itam ci mbër yi nga xamante ni boobu ba léegi coow mi ngi jug seen diggante ñoom ñëpp ndax 500 millions yi leen Macky Sall jox coow da cee mujjee jug donte que kenn yéenewu leen ko waaye nañu demee sax wuy ji Macky Sall moo neexul woon sénégalais diggante Ousmane Sonko. Mame Mbaye Niang wala sax diggante Ousmane Sonko ak Barthélémy Dias lépp tey Serigne jàkka dina leen ci indil en détail lépp li ngeen doon xaar ndax tëju bi yàgg na sénégalais namoon nañu waxtaan bi balaa boobu dañ koy bàyyi moom Serigne Jaka mu nuy mbokki internet yi nga xam ne ñoo koy seetaan Serigne bi bismillah aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim inna alhamdulilahi nahmaduhu wa nastahinuhu wa nastaxfiru mm-hmm. wa naouzu billahi min sururi anfusina wa min sayiati ahmalina man yahdihillaahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la mhm. hamdan liman qad allama la asrara bi fadli ibaduhul abrara mhm. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mhm. ñu ngi nuyu mboolem ñi nga xam ne ñoo ñuy bàyyi xel waxtu wi waaye nag delsi tey ngir leeral xam-xam delsi ngir dundal xam-xam delsi itam ngir waxtaane xam-xam ak kaawtee fii suñ borom subhanahu wa taala def ci alquran waaye itam waxtaane mbirum ñaan yàlla waxtaane ak cëriñ itam mooy lan waaye itam waxtaane itam suñu gis-gis ak li ñu gis ci baatin ci li nga xam ne moo xew ci réew mi fi mu ne mhm. waaye fas yéene ko def waxtaan woo xam ne itam képp ku suñ borom subhanahu wa taala nar a defal taw feexuk say aaju faju waaw wala taw feexu nam ma jariñu mhm. dina la defal taw feexuk nga mën a seetaan vidéo bi insha allahu rabbi mhm. azza wa jalla yàlla ñu suñ borom dimbali ñu ngi nuyu ñëpp amin waay sëriñ jàkka namoon nañ la namoon say kàddu namoon say waxtaan ndax pédagogue ngeen gis mu toog nii fi may njëkkee mooy ci seet seet mën naa ni sax am na nu mu doon demee duñ ko njëkkee duñ duñ ci wax hmm. ndax tolloon nga ci réew mi foo xamante ni danga ko doon def gratuitement waaye rang bi bëri woon ba hmm. seere lool lool moo tax nga ni kat faaw nga utal ko njëkk ci seet googu laa bëgg dikkaat waaw sëñ Lamine seet dafa nekk loo xam ne doomu aadama bu nekk war na koy def ay mbiram di ko xoll waaw ndax damay faral di wax ne nit ki ni ko suñ boroom subhanahu wa taala bindee ci ay kaw kaawteef ak ay xarañteef mhm. dafa doy waar waaw nit ki li mu umpale ci boppam mhm. moo ëpp fuuf fuuf fuuf fuuf li nga xam ne xam na ko ci boppam mhm. seet dafa nekk loo xam ne bu fekkente ne nit ki boole na mboolem xam-xam yi war a tax mu xam ko waaw mooy lu mel ne xilmu nujum xam-xamu biddiw astrologie mhm. nga xam ne nekk na loo xam ne mënul ñàkk ci kuy ñaan mhm. waaye xilmu ram li xam-xam la boo xam ne mën naa dimbali nit ki ci itam mu mën a seetal nit ki mën a wax li nekk ci moom lépp waaye itam léeg-léeg nit ki mën naa yor rawxaan woo xam ne bu ko tàggatee waaw mën na koy indil ay information yu bare bari yu mu xam ci réew mi mu nekk waaye information yu mu bëgg xam ci nit ki nga xam ne moom lay seetal nga xam ne seet mboolee xeet xam-xam yi nga xam ne dañ ko ciy gëstu ñun gëstu nañ ko ci waaw ndax suñu Seex Gaynde Fatma dafa daan wax ne xam-xam buy yóbbu nit kenn nit sawara xawuma ko mhm. waaye jëf juy yóbbu nit sawara laa xam moo tax seet jàng nañ ci lu leer muy nuuraniyu jàng nañ ci ay xeet yoo xam ne sulmaan yu la mhm. lépp ngir ngannaayoo ko man maa yëkkati sama loxo bi ci senegal maa ko ma a def waaw daal képp koo xam ne seetloo nga ma ma seetal la mhm. mën naa laa la li nga sol jamono jag may woo ma lay seetal eh, foo mën a nekk ci bu fekkee téléphone nga ma woo waaw bu fekkente ne loolu rek moo la ñor woo ma ne ma damaa bëgg a xam lu ma sol bu la soobee boo boo joxee weexal gi ñu seete mhm. ñu wax la li nga sol lan la eh, mën nan laa wax ba wax la ñaata moo nekk ci sa kalpe jamono bi nga may woo man mm-hmm. nan laa wax itam lu weesu loo xam ne dundal nga ko ba noppi mm-hmm. wax la li nga xam ne ci nga toll di ko dund mm-hmm. war la wax la lu baree bari ci sa mbir itam loo xam ne loo war a dund la te ñëwagul moo tax seet waxtu wii ñu toll man naa ne la ci réew mi awma ci morom bu doon sañ na na wax loolu ndax lu nekk def nañ ko ci seet itam dañ ci wattandiku itam li nga xam ne alxuraan daf ñu ko tere ngir ñu koy seete waaw ay xeet yooyu yëpp ñun dañ koy wattandiku lu ci baree bari itam des na ko jaar ci listixaar al istixaara nit ñu baree bari dañ koy jaawale ndax yoonte moo ñu waxoon dee leen listixaara lu seeni i mbir waaw listixaara nag mooy tànnloo suñ borom subhanahu wa taala dëgg la dugg ci mbir wala nga dëgg dëgmal mbir tànnloo suñ borom hmm. lam la ca wan di la ko tànnloo nga daal di jël loolee daal di koy doxale te doyloo ko hmm. listixaar moomee nag képp ko koy def waaw dafa war a fekk nga xam xam-xamu firi ba noppi ndax lu ci baree baree bari suñ borom mën la koon waaye ci gént la la koy wane léegi bu fekkente ne yow suñ borom wan na la ko ci gént te xamoo xam-xamu firi gént mhm. mën ngaa ay njuumte yu baree baree bari moo tax faw nga xam xam bi nga xam ne moo lay permettre nga mën a xam liñ la wan ci gént lan la loolu borom xam-xam yu bare bari dañ ci xaw def firi yi tam nekk loo xam ne bu fekkente ne xaar nga bañ wan la mhm. période bi nga xam ne ci nga defee listixaar gi ndax jamonow tàngaay la wala jamonow sedd wala bëccëg la wala guddi la lu nekk dafa am lu muy tegtale ci gént gi mhm. ki nga xam ne moom ngay listixaaral itam mhm. war nga xam ndax gént gi nga ko géntal moom ndax boroomu njaboot la wala amatu njaboot loolu lépp dafay feeñ ci gént gi mhm. waaye itam war ngaa xam tabihaam ak rawxaanam ngir mën koo wax lu leer naññ nañ naññ loo xam ne tey boo ko waxoon kañ lay génn àddina uh-huh. bu yeboo dem fay ay borom te xam ne bis boobu moom du ko génn seet mën na lii bu fekkoonte nit ki ñëw na ci yow nga seetal ko seet gu leer waaw mën nga ko wax kañ lay génn àddina boo ko waxee bu boobaa mën naa dem nag mu jéem a góorgóorlu ci jaamu yàlla mhm. fay ay borom te xam ne bis boobu nga ko wax du ko génn waaye seet itam nekk loo xam ne sëñ Lamine comme ni ma la ko waxee waaw dafa nekk lu doy waar loo xam ne ñu bare baree bare dañ koy woote woo waaye lañ ca xam dëgg-dëgg sax dafa néew waaye bu fekkente nit ki boole na xam-xam mu war a seete mhm. dëgg dëgg dëgg dëgg lum la ci wax mën nga koo fay ay bor te xam ne loolee moom dara dara dara dara ci kaw suuf du ko du ko mën a dindi ñun nag àgg nañ foofu ci seet insha allahu rabbi te seet nag mooy lépp waaw joxaa benn borom xam-xam la boo ko mm-hmm. ne ko boo ma joxee junni ma seetal la wax la li nekk ci yow lépp waaw joxaa ko toppal fële yow xamoo dara parce boo xamoon dara ci seet war ngaa xam ne man fii ma toll yoruma junni bu ma la jox parce que nit ki woo di la seetloo yow xamoo ndax li nga koy laaj ci weexal yor na ko wala yoru ko foofu la tële man képp koo xam dama lay laaj ak weexal waaw balaa ma la koy laaj war na maa xam ndax yow lii ma lay laaj yor nga ko wala yoroo allah waaye léegi da ngay gis nit sonn ñëw ci yow waaw nga koy laaj loo xam ne yow bu fekkonte ne am nga xam-xam war ngaa xam li nga koy laaj xaaj bi xaajaat bi ko waaw loolu loolu loolu baax a baax xam ne daal képp koo xam ne xam na xam-xamu seet ba nit ne karara di la woo mm-hmm. la nga koy laaj ci weexal war ngaa xam ndax mi ci moom mm-hmm. wala nekkul ci moom mooy comme li ma la doon wax léegi macha allah uh-huh. am na solo waaye ku ni Cheikh ku ni Serigne Diaka Ndiaye rek mm. day wax alxuraan. Mhm. ndax xam ni nga ko maîtriser ni nga ko mhm. xamee ak ni nga ciy liggéeyee. Mhm. waaye lu ñu jaaxal mooy tey dañoo ñëw fekk nga teg ay sunguf. mu mel ni ay sunguf ki i reen ak yeneen ak yeneen li ci doon wax ba léegi yaa ngi ci. waaw ay sunguf ak reen. waaw daa loo xam ne mënuñu ko jëlee ci ci ci ci ñaan mënuñu ko ci génnee. déedéet xel ku nekk xam na waaw loolu kenn mënu koo génne ci ñaan. xam-xamu boo xam ne. ay sunguf lay doon ak reen gis nga lii lu ma ci mënul faj amul. sunguf yeeg moom sunguf ak reen ak lu ci nit mënta faj ci kaw suuf suñ borom subhanahu wa taala dogal na ne amul ndax moom garab yi suñ borom subhanahu wa taala yonente bi daf ñu waxoon ne bi turbati ardina wa bi riixi baax dina tushfa mardana mhm. les produits de notre noo grisnomo bépp tawat buy dal nit wala jàngoro jum mën a doon wala aajo jum mën a doon waaw la koy faj suñ borom subhanahu wa def na ko ci gàncax yi def na ko ci garab yi def na ko ci reen yi waaye garab yi nag bu ñu fàtte dafa am wu ci nekk dafa am aw sant hmm? dañoo am ay sant. garab ay tur itam. garab gu nekk dafa am nees ko war a jënde ak aajo joo cay faj ju mën a doon am na am na aw yoon woo xam ne hmm. ca ngay jaar ngir mën a am sunguf yooyee wa in min sayin illaa yusabbihu bi hamdihi loolu ba ko suñ borom subhanahu wa taala di wax lépp taxoon gis nga sunguf sii ma la wan nii bu verte suñ borom subhanahu wa taala ak gépp gu mën a doon bu wecc beeg bu ñuul beeg bu xonq bi waaw suñ borom def na ci ay énergie yu positif ak yu negatif lépp lu mën a doon ginnaaw ba suñ borom ne dafay sàbba da koy sàbbal moom yàlla waaw gis nga sunguf si dafay sàbbal yàlla waxtu wu nekk mhm. nga dégg ko ak nga bañ koo dégg micro bii ma yor tey di waxtaan ak nit ñi dafay sàbbal yàlla waxtu wu nekk uh-huh. ñu dégg ko ak ñu bañ koo dégg léegi sunguf si ginnaaw bi muy sàbbal borom bi subhanahu wa taala waaw suñ borom daf cee def ay énergie yu positif ak yu négatif mhm. bu fekkente ne man nga cee lor nit man mhm. nga cee jaar lor ko ba faaw mën nga cee jaar njabar ci nit mu mu fekkoon ko am loolu nga fexe ba mu ñàkk ci sunguf mën ngaa fexe koo xam ne itam ku ñàkkoon la nga fexe ba am ci sunguf maanaam dafa am lu positif am lu négatif waaye nit ki nag mooy xool ndax daf koy jëfandikoo di ci lor nit ñi wala daf koy jëfandikoo ngir di ci dimbali nit ñi man nag sant naa yàlla bu baax a baax a baax ndax damay yëkkati sama loxo bii ne waaw ba ma commencé yëngu ci mbirum ñaan yàlla ak léegi mm-hmm. musuma lor nit ci ñaan bañ nan ko ba sama image sax wanewul loolu mm-hmm. man ci nuuraani yu gu leer nañ ñi lay dox waaw nit ñi yebuñu ma sax yeb goo xam dañ may woo naan ma bëgg liggéey sama wujj wala sama bokk wala xeetu ko yàq nit ñemewu ma cee woo di ko wax waaw képp ku tawat ak tawat ju mën a doon boo dikkee mën nañ koo saafara waaw képp ku tëju ak tëju gum mën a doon boo dikkee mën na laa tijji ba nga ubbeeku waaw waaw képp koo xam ne ak noob ngay wut boo dikkee mën na laa noobal ci noob googu laa bëggoon a dikk ndax bëri na ñoo xamante ni ci yow lañ koy wut see noob dafa nekk loo xam ne dafa nuru lu yomb lool te jafe lool boole ñaari nit boole ñaari nit ak ñaar ñu mën a doon nag dafa nuru lu yomb waaye dafa jafe nag man gi ma ciy liggéey guddik ajjuma ba guddik ajjuma laa koy liggéey Ah. guddi àjjuma bu ma xasee raw li des ci semaine bi ku ma ci woowaat di ma noobloo du ma la noowal hmm? guddi àjjuma képp ko am da ngay nooblu da dañ lay jëlal rendez ba guddi àjjuma ñu liggéey la li ñu lay liggéeyal fexe nga jot ci ak foo mën a nekk bu la soobee itam ñu defal lépp fii waaye billaahi lasi laa ilaaha illaa huwa képp ku ñu noobal sa diggante kañ lay noobal dina rattax ba nga xam ne yow ci sa bopp daf lay jaaxal dafa am benn moodu moodu boo xam dafa ma soon a jógee bitim réew waaw doon ma noobloo soxnaam mhm. parce que dafa am ay dut ci ndax soxna si dafay nekk ci yeneen bu fi nekkul waaw waaye ñu ko noobalee soxna si li koy xamal ne noob gi jàpp na dëgg dëgg dëgg mhm. nee na dafa demaat di tukki bi mu dellu soxna si ci boppam moo ko kott di jooy nee tukki na lu mat fukki at ak juróom-ñett mësta mhm. dellu ba soxna si lëng ko di jooy nee na bi mu dem yoon boobee soxna si daf koo lëng di jooy ngir nam gi mu ko nara nam namm bu demee nga xam ne noob dafa nekk loo xam ne mhm. képp koo xam ne am nga koo bëgg fas yéene koo fas moo xam nit ku ñuul la waaw moo xam nit ku weex kum mën a doon mhm. dinañ la ko noobal ba mu jël ab xolam jox la ko même góor sax dina noob góor du ko noob ngir mu bëgg ko comme nit jigéen di bëgge mhm. waaye comme lu mel ne tey ngay liggéeyal bëgg mu jox la wala fa nga nekk nga bëgg fa ab wàccuwaay bu boobaa noob ngay jëfandikoo ci nit ki ngir mën koo def lii nag nit ñi dañ koo sàggane mariage dafa nekk loo xam ne ci lislaam waaw wëree su koo caaxaane déedéet gis nga bala nga cee dugg war nga ko xool bu baax a baax a baax boo xoolee ba gis ne lépp ànd na bu boobaa nga daal di noob nag boole seeni xol ba nga xam ne dara du ko mën a yàq mhm. boo ko noobee pare noot ngay def bu mhm. soxna si ñëwee sa kër da koy noot ba nga xam ne dara ci àdduna du ko du ko du ko mën a génne kër ga dëgg la moo tax lii lu mënta ñàkk la te képp kuñ ci jëflanteel bu soobee borom subhanahu wa taala ci amuk cant bu baax a baax a baax macha allah uh-huh. waaye sañu ñoo ñëw waxtaan ak eh, sëriñ bi ba dem te duñu waxtaan ci mbir moo xamante ni sonal na sénégalais yi te saafara si nekk fii mm-hmm. muy wàllum ngóor a néew kàttan mm-hmm. saafara saa ngi fi moo tax du ñu waxtaan ak yow mukk te demuñ mm-hmm. ngir ñi nga xamante ne dal na leen ñu mën cee jariñu waaw wàllum néew kàttan dafa nekk loo xam ne lu ci baree baree bari lekk yi nga xam ne moom la ñuy lekk rek moo ko waral kon nit ki bu fekkente ne fexe na bay lekk lekk gu baax gu tegu ci yoon waaye itam stress bi nga xam ne daf koy am ci biir néegu sëy mu wàññee ko parce que soxna yi ñu ci baree bari néew kattan yi dal seen borom kër yi dañ ciy mm-hmm. participer bu baax a baax a baax mm-hmm. parce que bu fekkente ne sa borom kër dafa liggéey ñëw sonn waaw nga koy indil ay stress yoo xam ne dafay gën a ub boppam bu boobaa moom ci boppam mën naa njort ne dafa néew kattan fekk néewul kattan di mhm. ko dal rek mooy stress mhm. waaye koo xam ne néew kattan dafa laa jàpp ak gépp gum ci mën a doon yor nañ ci ay saafara ci alxuraanul karim ju mhm. yoo xam ne moom la ñuy boole jox ko nit bu ko jëfandikoo suñ borom subhanahu taala dina ko jox kattan gu ko bett lool lool masha Allah am nañ ko ci itam ci joxe yoo xam ne nit ki bu fekkente ne jël na ko insha allahu rabbi dina ci gis ak yokkate ci xeet néew kattan yi insha Allah mu mel ni da nga fonk lu neex mooy parfum. Mm-hmm. ndax gis nañ nga yor ci yu façon yu bari. Mm-hmm. teg fi mu mel ni tamit dafa ànd ak liggéey bi. waaw gis nga bu fekkente ne da ngay yëngu ci wàllum ruuxaan rawxaan. waaw faaw ngay jëfandikoo yii parfum yi nii. sëriñ si yëpp dañ ko war di dañ ko dañ ko dañ ko mm-hmm. dañ ko war di am di ko garder. parfum yi nii yëpp. waaw te pourtant nekkul loo xam ne war naa seer seeraay goo xam ne nit ñi waruñu ko wuti. waaw gis nga ab sëriñ bu fekkente ne da ngaa xas woote woon da ngay ñaan yàlla. da ngay faj ci yow. man lépp loo xam ne ba ma ko jëfandikoo dina gën a yombal sama fajog ajo waaw dama koy dal di jëfandikoo parfum yi dañ koy jëfandikoo bu baax a baax a baax a baax yii yëpp waaw bu ci nekk dafa am ci lu muy dox am na ci yoo xam ne ci ubbiku lay dox wàllum ruuxaane yi dafa xaw doy waar aussi jinne yi nga xam ne dañ jëflanteeg ñoom itam mhm. ñoom xeeti xeeti parfum yi dafa leen di neex waaw parce que boo seetloo li ñu wuutale ñun ak jinne yi ci wàllum parfum mhm. mooy ñoom ci seen fi ñu dëkk xaalam yi ñu dëkk waaw foofa xeeti parfum yi amu fa moo tax en général ñoom xet gu neex daf leen di attiré. waaw surtout yi nga xam ne doo alcool. parce que jinne yi ñoom suñu borom subhanahu wa dafa dogal ne. Mhm. ñoom ak doomu aadama dafa am différence yoo xam dañ ko amee. Mhm. jinne bu fekkente ne mas nga koo gis. Mhm. moom buy ñëw ci yow. bokk na ci xet yi muy àndaale. muy xetu bëy. bokk na ci li muy faral di xeeñ lu bare bare bëri waaw parce que dañu jaxasoog bëy yu bëri mhm. beneen bi ci des léeg-léeg mu indaale xetub jën parce que ñu bari ci ñoom dañuy dund ci jën yi mhm. léeg-léeg nag xet gu xasaw la ñu indaale goo xam ne yow sax doo ko mën a comprendre mhm. bu boobaa xeeti parfum yi daf leen di attiré ngir ñu mën a ñëw ci yow euh, damay jaarale foofu itam di leeral ci wàllum ñaari xeeti jinne yi am waaw bu fekkente ne nit ki dafay liggéey ci nuuraan yi am na ay jinne yoo xam ne ay jullit lañu waaw dañuy ànd ak moom di ko jàppale ca liggéeyam boobee ndeysaan nga xam ne léeg-léeg di nga dégg sëriñ boo xam ne ci alxuraan ju leer nañ ci la yëngu waaw mën naa am sax ba am soxna si jinne wala ma am taalibe jinne waaye soxna yi jinne yooyee day dañ koy jàppale ci liggéeyam waaye ci alxuraan rek nag lañ koy jàppale waaw waaw bis bu demee ba bàyyee wane lu jëm ci alxuraan ñoom bàyyi lañ ko jàppale mhm. am jinne yoo xam ne ñoom ci nuuraan yu rek la ñuy dox mhm. sulmaan yu la ñuy dox bokk waaw ñoom képp koo xam ne ci fétis ngay dox mhm. ñoom ñoo lay jàppale ca loolee bu fekkente ne xam-xam bu ñu rekk ci ngay dox ñoom mën nañ laa sëyal mën nañoo nekk ñu lay jaamu mën nañ laa wan itam ay miracle yoo xam ne da nga koy def waaye miracle muñ man nag ma ca alxuraan moo ko gën a man damay faral di joxe exemple boo xam ne tey bu fekkente nit ki dafa am wujj dem ci sëriñ boo xam ne xam bu ñuul lay jëfandikoo mm-hmm. daal dina ko sama wujj wi dama ko bëgg liggéey ba nga xam ne dafay gis règle boo xam ne du arrêté mukk mm-hmm. bu boobaa sëriñ ba mën na koo laaj aw bëy wu ñuul kukk mm-hmm. ne ko boo indee bëy wu ñuul wi dañ koy jël ñu daal di koy rendi toqal ko ci morso bu ñuul kukk bu boobaa am na ñu koy booleel bu ñu génnee sarax yi sa wujj woowe dafay gis règle te règle bi du mas a arrêté wala dafay tawat tawat yoo xam du mas a wér ci àddina bu ñëwee ci koo xam ne ci alxuraan lay dox ci nuuraane gu leer waaw bu waxtaanee ay jinne moom jinne bi dañ naan ko kii li ko jàpp contraire bi moo koy faj waaw nga ne ko lu koy faj mooy li koy faj de mooy dafay wuti nag aw bëy wu weex wala am xar mu weex taral mm-hmm. bu ñëwee nag dañuy wut perkaal bu weex tàll mm-hmm. daal di koy rend sotte ci deret ji mm-hmm. wala sax ñu rend ko def ko ay dog daal di saraxi saam yi boobaa la ko daloon ci tawati njabar suñ borom subhanahu wa taala dina ko saafara kon loolu nañ ko xam bu baax a baax xam ne daal ñun ñi nga xam ne ñooy dox ci alxuraan di ci yëngu nga xam ne alxuraan rek la ñuy faje ñu nag ñi nga xam ne ñoo yar xam-xam bu ñuul ñun ñooñe combat la xisbullah la ak xisbu waxtu wu nekk ci kër kër la ñuy dund waxtu wu nekk ci ay ci ay ci ay ci ay ci ay defante la ñuy dund wax dëgg yàlla ndax fii ma dëkk rek waxtu wu nekk mhm. ma gis koo xam ne xam-xam bu ñuul lay indi di ko jéem a pexe ci ñun mhm. waaye alxuraan moo lépp ndax suñ borom subhanahu wa taala moo nañu mhm. lii ni daf koo wàccee waaw ngir mu nekk saafara ak yërmande ñeel ñu ko gëm mhm. saafara ak yërmande ñeel ñu ko gëm waaw téere bii mën naa fekk koo xam ne ku néewoon doole la ci wàllum am am waaw mu yëkkati ko ba ñëpp di gis téere bi mën naa fekk koo xam ne ku tawatoon la lool ba ñu jàppal ko bis bi mu faatu am na amati mhm. billaahi la ilaha illa huwa nit jàppal nañ ko Europe bi sàngam ngay faatu wër la fekk ci kaw suuf waaw mu dikk ma bind aayatu sifa yi nekk ci alxuraan yépp mhm. jox ko ko ba léegi mi ngi dund allahu akbar wa rabbul kaabati ba mu delloo Europe dafa jaaxal médecin yi ko waxoon loolu hmm. gis nga kii lu mu mënul ci kaw suuf amul moom alxuraan mi waaw da ngay dégg nit ñi naan ay mbiram dafa yeex hmm. waaye loolu ak ñàkk xam dong waral ñu koy wax yàlla xam na ko gis nga kii mooy mëtóorub mboolem saafara yi mooy nday mboolem saafara di nday mboolem téere yi hmm. saa aajo june faj naa ko ci alxuraanul karim maa farat naa fil kitab min amul jenn tawat amul dara loo xam ne suñu borom subhanahu wa taala daf koo fàtte ci alxuraan ji mm. waaye nit ñi nag léeg-léeg saytaane moo leen di man di leen xamal ne seeni mbir xam-xam bu ñuul moo koy faj mm. seeni mbir alxuraan gaaw ci waaye billahi lasi laa ilaha illa huwa mm. kii teraanga juma defalul ci ñaan amul macha allah te musuma laaj nit ci ñaan téeméeri junni yu wala lu ko ëpp samay weexal lu tuuti lay doon waaye lu ne defal nan ma ko ci ñaan wallaahi parce que nekkul weexal gu bari gi ngay laaj nit ki. Hmm. ci la ci ngay ci ngay ci ngay tedde hmm. waaye képp koo xam ne yaa ngi faj aajoy nit ñi. say aajo du des. parce que léeg-léeg nga ñaanal nit mu yëkkati oto ñëw may la ko. mën naa am juróomi junni nga ko laajoon wala juróom benn junni. waaw léeg-léeg nga ñaanal nit mu takk juróomi million ñëw indi la ko. bu yàggul nit waaxu na ba sama kër indil ma fukki millions yoo xam ne wa rabbul kaxabati bi ma koy ñaanal juróom-ñaari junni laa ko laajoon ci weexal allahu akbar waaye yokkute gi mu gis ak oh. mbiram ndeysaan bëgg gi mu ci bëgg moo mhm. waral mu ñëw jox ma loolu mhm. te fi mu ne mbedd mu ma neex laay jaar man aw ma sens interdit fu ma neex laay jaar ci réew mi waaw fu ma neex aw ma fenn fu may rus a jaar mhm. amul kenn koo xam ne itam da nga may woo may bañ a jël sa téléphone loolu amul ci kaw suuf li ko may nag mooy alxuraan ji nga xam ne suñ borom moo ko wàccee ngir mu nekk saafara ngir mboolem jullit ñi waaye nekkul saafara tawati yaram rek yi ñu xam mm-hmm. waaye safaawul li ma fi sudur mm-hmm. tawati dënn yi nga xam ne ñooy nekk ci biir dënn nit ñi mm-hmm. leen defloo ay mooy yàlla rawate nañu baree bari ci sama mbokki maa ngi leen di dénk ñu ragal yàlla bu baax a baax wa taqu yawman turjaxoona fii ilallaahi summa tuwaffa kullu ragal yi yàlla ci yi nga xam ne moom la nit ñi di andi ci ñoom ñuy sonn ci ñoom gis nga sëñ Lamine lii ay enveloppe li fi nekk mat na téeméeri enveloppe yoo xam ne benn jëmu ci réew mi yépp bitim réew lañ jëm réew rek te bu ci nekk su ma ko joxee nit billaahi lasi bu ko xoolee léeg-léeg dafay xeeb li ma joxoon ba daf ma yónnewaat parce que ñaan du lu bari li ngay laaj waaw te aussi ak sëriñ ak koo mën a doon bu fekkente ne li ngay wax dëgg la ci yow hmm. waruloo yaakaar ci lii rek ngir am xaalis hmm. man bépp client boo xam ne yaa jàpp ne boo téyee li nga may jox man dootuma amati wërsëg téye la nga ma daan jox xool ba xam wa rabbul kaabati boobu lay gën a yokk yow heure boo ma boo ma gisee tey jii boo may gisaat di nga gisaat ak yokkute gu gën a wér te yemuma ci kii dong dëgg la gis nga sëriñ si itam maa ngi leen dénk ñu dem wuti yeneen métier di ko booleeg ñaan gi loolu mënta ñàkk waaw tey yàqu ci dara mhm. sunu maam yi faj nañ fi aajo waaye itam lañ koo boole woon ak yeneen métier ay jur lañ yoroon di sàmm ñi yor ay tool ñi yor daalee arxaan di ci jàngale mhm. waaye xale bu ndaw boo xam ne la nga am ci at mutul ñaar fukki at mhm. nga luy ab appartement toog fa war a dund war a fay location a fay courant war a fay ndox sëñ la andil di nga ci engagé wu parce que bu fekkente ne engagé woo ca loola doo dund man nag dama yaakaarul lii ngir dund lii dama koy def ngir faj aajo yi nit ñi ba tax na bés bu set ñetti nit lay jël ñetti nit ñi sax duñ fekkante sama kër kenn ki suba lay ñëw kenn ki ñëw bëccëg kenn ki ñëw ginnaaw tàkkusaan mhm. nii laa koy organiser bëgguma ay xawente surtout sama kër parce que li gën a yomb ci cëriñ mooy fexe ba ay nit dina dikkal chaque jour waaw te sénégalais loolu lañ bëgg mooy ne bés bu set kenn na fay ñëw buñ ma kii du waaja fekk xëy na kenn kooku di ñëw aajo mi ngi faju waaye ñoom nañ dem ran fa nga xam ne xëy na junni nit ñoo fay nekk te seen aajo du faju waaw gis nga ab sëriñ fexe ba nit ñu bari di la loolu moo gën a yomb ci sëriñ te bokk na ci li ma ciy maye mooy juróom-ñaari yuusuf ku ko ku ko bind mm-hmm. juróom-ñaari sóotul yuusuf ku ko bind waaw wut juróom-ñaari xeeti parfum yu amul alcool waaw def ko ci biir daal dem ba ci marché fu mbooloo daja nga gas ba mu xóot suul ko juróom-ñaari fan mm-hmm. sulli ko sangoo ko juróom-ñaari fan billahi allati laa ilaha illa mm-hmm. lépp loo yóotu ci lépp loo yóotu ci kaw suuf ci mbooloo di ko am sëriñ si dañ koy jëfandikoo ngir mbooloo mi di fees seen kër. waaw politicien bu ko jëfandikoo itam yaay féete kaw mboolem ku dul yow. waaye itam képp ko ko utiliser ci koo xam da ngay wut mbooloo ku mën doon mbooloo di ko am ba mujj yàgg yaay mujj di daw mbooloo mi incha allahu rabbi lii maa ngi koy maye li wàcci lay taalal kër yi bi képp ko koy tuwo mën nga ko jël incha allah oh lii hmm. moo tax dañuy bëgg di ko seet ci hmm. moom sëriñ Modou Diaka Ndiaye ndax xam-xam gi hmm. mën naa ni heure bu waxee rek mu feeñ waaye nag ku wax daal di feeñ moo tax bu waxee rek gaa yi xam ni boroom xam-xam dëgg dëgg dëgg mooy wax waaye tamit borom asraar borom kurus waaye tamit borom ñaan yàlla. moom moo wax dañuy jàll ci actualité njëkkee ci mbër yi. wuy ji nañ mag Sall lëndi. tombeek dëkk bi yëpp di tàq. naam waruñu woon waruñu woon a sax bàyyi ba jour bu Sénégal di nekk ci crise ñu naan dañuy wuy ji waaye dafa am lu fa xew mooy dañ leen a jox cinq cinq cent millions. ba indi na coow seen diggante sëñ bi. mu mel ni la leen Sénégalais yi doon yéene moom moo dal seen kaw. dëgg la dëgg la dëgg la ndeysaan xam nga li may wax foofu mooy. am picc dañ koo mas a këppatal mhm. mu daal di naaw rëbb ba jàpp ko li tax jàpp ko mooy daa xam ne liberté moo gën a seer dugub dañ ko xëppal waaw moo gën a seer dugub jooje ñu ko xëppal waaw gis nga ak kum mën a doon da ngay sàmm sa ngor mhm. sañ sàmm sa dignité mhm. ak koo mën a doon ci àddina kenn bañ laa jënd parce que doomu aadama teraanga ji suñu borom subhanahu wa taala def ci moom moo gën a kawe ñu koy jënd ay cinq cent millions wala ay milliards dëgg wala xadd karram naa banni aadama wa xamal naahum fil barri wal bahri wa rafaqnaahum min tayyibaati wa faddalnaahum ala kasirin mimman xalaqnaa la mm-hmm. suñ borom teraangaam jii ci kaw suuf yépp mm-hmm. ngir doomu aadama yi la bu ci kenn nangoo jaay sa ngor waaw kenn buñ jaay buñ nangoo am njëg rek dañuy yem ak bàyyi ma yi waaw waaw dañu yem ak bàyyi ma yi te koo xam ne nag wax dëgg yàlla toog na ci réew may at yu baree baree bari mosulaa lijjanti mm-hmm. mosulaa recevoir yaakaar naa liñ yaakaar ne moo ko fi dese diggante boobu mën la cee fajal aajo ja nga bëggoon ci diiru fukki at ak nangam yi fi nekkoon kon loolu nañ jëfandikoo seen xel yi mhm. xam ne nit amul njëg mhm. te it bu fekkente ne dañoo war seenu askan ngir liñ leen di jox bis dina ñëw suñ borom subhanahu wa taala jële fi ki fi nekkoon indi fi koo xam ne ak dëgg rek koy wut ak ku mën a doon ci réew mi nag insha allahu rabbi mais Ousmane Sonko sax mi nga xamante ni war naa jàkkaarloog Adji Sarr mhm. le 16 xel tey na ndax dañ koo daan daan wu koy teree dem élection 2024 ci digganteem waaw Ousmane Sonko la ma ci waxoon rek ay mbiram ak mbiri makki mii de mbir la moo xam ne. Mhm. waa baatin ñi nga xam ne baatin dañ koy jëfandikoo. waaw am na lu bare bare bare luñ ca xam. am na ñoo xam ne sax. wax dëgg yàlla léeg-léeg nga gis ne léeg-léeg ñu wax ba rëcc li génn ci dara. waaw waaye loolu lu lu lu rëcc ñoom rek génn la. Mhm. waaye la ca nekk ci mbirum baatin dëgg-dëgg kenn du ko wax. Hmm? président de la république. Macky Sall waaw moom ci boppam xam na ne mbir mi mbir mu baatinu la. bu fàttalikoo mbirum ak Ousmane Sonko. moom président Macky Sall bu fàttalikoo ñeenti weer ci ginnaaw wala lu ko ëpp tuuti. waaw am na gént ko ko dikkaloon ay gént sax laa wax ndax tegale na ay gént yu bare bari yoo xam ne daf ko doon dikkal lu mat ñeenti weer wala juróomi weer ci ginnaaw bëgguma ci wan yaatal. waaw gént yu ko jaaxal yoo xam ne. waaw bari na ci kilifay diine ci réew mi yoo xam ne. Mhm. dem na ci ñoom ngir leerlu gént yooyu gént lan la. Hmm? ba léegi amul benn borom xam-xam ko ci firi la gun gént googee gën la góor yàlla yu baree bari ak président yu baree baree bari waaw dayob kattan gi nu yor tax na lu baree bari bu naree wàcc seenu ngóor moo xam ay la wala musiba wala lu mën a doon waaw léeg-léeg suñu borom dee leen ci wan tuuti ci gént ndax suñu borom moo wàññi dara ci nguuram sédde ko ñoom dëgg la ñu xam ko ak ñu bañ ko xam mhm. moom ci boppam am na ay yu doy waar yu ko doon dikkal ci ginnaaw waaw te ci kanam tuuti lu mel ne gént yooyu dina ko dikkalaat moom Macky Sall billaahi lasi laa ilaha illa huwa bu jàmbalut Ousmane Sonko lu métte métte moom Macky Sall. ci wàllum baatin wal rabbul kaxbati. bu Macky Sall jàmmalul Ousmane Sonko. billaahi wallaahi wal kitaabi. te moom ci boppam président de la république am na ay gént yu ko dikkaloon yoo xam ne. Mhm. doon na wër ñu ko ko firil. gént yooyee ba léegi. Mhm. mën na maa teg sama loxo ci alxuraan ji waat ne. waaw amagu ci lu ko laar ba léegi. mais aji Sarr mi nga xamante ni moom moo teree nelaw sénégalais yi. ndax mhm. procès mbeeg Sonko tamit bu ñu waxantee dëgg rek heure bu ñu ko yëkkatee coow jug ba am ñu ci seen ñàkk seen bakkan. waaw xanaa di ñaanal ña ca ñàkk seen bakkan suñu borom yërëm leen te jéggal leen ña ca ami gaañu gaañu suñu borom daal di leen di eh, delloo siwaat ba ñu mën a jotaat seenu wér waaye Ousmane Sonko daal la ma ca daan wax rek ne waaw moom day nit la koo xam ne suñ borom subhanahu wa dogal na ne hmm. képp kuy jéem ci moom loo xam ne jaaduwut hmm. suñ borom subhanahu wa mën na laa woon loolee waaw waaye moom ci boppam na xam bu baax baax ne suñ borom subhanahu wa taala hmm. bu fekkente ne bëgg na koo fal wala mu bëgg koo sutural waaw loolu mbindeef mënu ci dara faw suñ borom dina ko fal waaye itam dina ko sutural bu nit ñëpp àndoon di ko xeex itam du tax ñu man ci moom lu toll ne tarfatal ayni xul lan yusibanaa illa ma kataballaahu lana huwa mawlaana wa ala llaahi falyatawakkal mu'min mhm. na wakkiirlu ci yàlla xam ne pexe yi ak galgal yi ak coono yi ñu koy teg mhm. loolu mënul yàq dara dara dara dara ci lu suñu borom nar ci moom te it képp koo xam ne nar ngaa jot ci la ngay bëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mhm, faawu nga jot dëgg dëgg nag am nattu faawu nga jot ab coono faawu nga jaar ci gàllankoor ak i galgal waaye bis boo ci jotee di nga fàtte lépp te inchaa allahu rabbi réew mii muy xëccoo dinaa ci jot bis moom Ousmane Sonko moom dinaa ci jot bis incha allah rabbi azza wa jalla kon lépp lu waaye di oh, jëfandikoo na nekk rafet moo xam wor yeeg waaw lu mu ci mën a doon rek mm-hmm. na ko na ko na ko na ko xam baax waaye ñu xam bu baax a baax itam ne mm-hmm. benn boroom xam-xam dafa daan wax ne mm-hmm. bul wor ki la wóolu waaye bul wóolu itam ku la war bul wor ki la wóolu waaye nit bu la wóoloo ba def la ngay léppam waaw def la xaritam bul ko mas a war ndeysaan waaye nit ki itam bu la woree benn yoon li def ci sa àddina bul ko mm. wóolooti bul ko wóolooti ak lu àddina dox dox dox na xàmmee ñi nga xam ne ñoo ko waroon waaye xàmmee ñi nga xam dañ koo jàppoon te yàlla rek tax mu konte ak ñoom xam ne oh, nga tàggu mbokki internet yi nga xam ñooy seetaan mm. te ñu tëj yeeweeku ndax fi ñu la fekk sori na lool mm. tamit bëgg nañ yéen teel a yegg sëñ bi dëgg la alhamdulilah li may tàggatoo rek mooy sama mbokki sëriñ si nga xam ne mm-hmm. fan yi mbir yi bari na lool ci ay wax ak yu mel noonu ku nekk di yëkkati loo xam naan maa ko mën nii laa koy defe waaw waaye nañu xam bu baax a baax ne ak cëriñ ñëkkul loo xam ne lii ñu ko bëgg jàppe la mm-hmm. ak cëriñ mbir la woon moo xam ne suñu borom subhanahu wa taala li ñu li ñu li li mu war a njëkk def mooy jàng alxuraanam jii ba wattu ko ba noppi waaw bu ko wattoo ba noppi mboolem xeeti xam-xam yi ñu war a jàng ngir nekk ab sëriñ mu dem gëstu ji ko mm-hmm. bu noppee ci loolu mu nekk koo xam ne nag yitteem wërta doon lu dul yegg ci boromam subhanahu wa taala dëgg la ndaxal asraar nag ay secret lay firi mhm. waaye xam-xam yi ko composé jëriñut lu dul yëkkati nit ki nekk ay maraaxil yoo xam ne nit ki mën na cee teg tànkam ba yegg ci péncum borom bi subhanahu wa loolu na ko nit ñi bàyyi xel bu baax a baax mhm. xam ne nit ñi di leen andil ay xaalis ñoom wala ay weexal mhm. ñu di ko lekk bañ a faj seen aajo suñ borom dina ko àtteeg ñoom de waaw wa yàqan xisaasu bay na jammaa wa bay na xar naa li xatlin samma képp ko ndax fii ëllëg yow mal xëyam di ngeen ko layoo gis nga xar mi amoonu béjjën di mbëkk mi ko amul mm-hmm. ëllëg bala ñoo jëm fenn ñoom deneen wekkee ko amoonu béjjën wekkal ko ko ko amul mu fayu ba noppi fu ñu jëm ñu soog faa jëm nañu xam ne addiyee nit ñi ak weexal yi ñuy indi ci ñoom nit ñi dañoo sonn soog ko am waaw gis nga sëriñ si ngay gis ñuy dawal oto yu rafet yi dëkk ci kër yu rafet yi mm-hmm. yor jongame yi di ndamoo loolu mm-hmm. loolu du ndam de li tax du mooy alal joo xam ne bala nga caa jot nit daa wopp alal joo xam ne bala nga caa jot nit daa dugg kaso nga war ko caa génnee mhm. alal joo xam ne bala nga caa jot nit daa nekk ci jafe-jafe ki gàllankoor mhm. alal joo xam ne bala nga caa jot nit cat da koo jàpp mhm. waaye jii alal lu ko nit koo ndamoo sax di ndamoo loo xam ne ci weexal laa ko oh. nit ñi di ko faj seen kémtalayel kattan xam ne nit ñi jaaxle na sonn na te xam-xam bi suñu borom dafa leen koo dénk ñoom ak ay junni nit ñoo àndoon dem sàkku ji ko waaw nekkul na ñëpp la ñor ña ko ñorut sàkku jiwun waaye ña ko ñam ñoroon ban sàkku ja xam-xam bi ay junni nit lan waaw suñu borom daal da cay tànn ab lim ñu xam-xam-xam boobee mm-hmm. tànn gëm leen ca tànn nekkul na ñee dañoo ñàkk jom wala dañu ko jéemut a gëstu mm-hmm. suñ borom lay sopp mu jël ñiy def leen waaye ñiy joxe xam-xam bi itam nañu xool ñiñ koy jox xool seenu ragal yàlla xool seenu ngëm yàlla fu mu toll ñu soog leen dénk xam-xam ndax xam-xam la boo xam ne bu fekkente nit ki am na ko boo ko xamee dëgg-dëgg da ngay tiit ci njàqare ngay dëkk man waxtu nekk ci tiitaangi lay dëkk xam-xam boo xam ne dañ naan la boo boolee lii ak parfum bi ak lii lii def ko nii nit dee wala nit feebar te dootul wér xam-xam bi boo ko xamee sam xel dootul dal ba mukk mukk mukk te nit ñaa ngi koy foowe ci dëkk bi kon nit ñi gën a góorgóorlu ci wàllum ñaandu mm-hmm. xam ne suñu borom moo ne ni fastajib lakum mm-hmm. nañ koy ñaan ba may ñu mm-hmm. loolu nañ ci sax insha allah na solo ñu seet si woon ko ni ma koy waxee rek naan ci mbégte la ñuy am saa su ne bu ñuy jàkkaarloog jëmm ji ndax boo jàkkaarloo mais moom rek xam ni yaa ngi ci terminus su xam-xam mën naa ne bu ñu doon wax ñi ëpp xam-xam ci réew mi dañ ko ciy boole waaye boole na ko kook pédagogie boole na kook ragal yàlla goo xamante ni tey ñi nga xamante ni jëflante nañoo moom xam nañu ko waaye tamit xam nañ dayoom ci wàllu asraar mi ngi noonu mbokki internet Allô Sénégal ñi ngi leen di jaajëfal di leen jox dig daje ëllëg seen beneen émission jërë ngeen jëf